ñëpp dem nañ ñëpp génn nañ malgré ñu bari miinuñu ko wala ñu bari xamuñu woon ne noonu la demee donc vraiment sant nañu leen gërëm nañu leen di leen encouragé tamit yàlla na yàlla euh, continuer li ci des yëpp nekk ay ndam ay ndama ndam parce que seen ndam mooy suñu ndam parce que ñun ñëpp ay a baax a ñun fi ñu ni bu ngeen demee ci ambiance ngeen ñuy bàyyi que am na keneen beneen animatrice bu war a ñëw ci kaw euh, scène bi waaye laata muy ñëw hmm. tos dañuy dem xool yi beneen partenaire boo xam ni baax na tamit ñuy ambiance di animer ak di invité waaye baax na ñuy wutaale xaalis waa Touba daaru waxab cosmétique ñu dem xooli lan moo fa nekk te ñëwaat léegi ci plateau bi seetu Sénégal ay ci Félix Faure foofu numéro téléphone bi di 842 30 50 foofu boo ñëw jotul fii rek jot ñu fii. li xew ci foire bi yëpp dara du leen ci ump ñu ngi euh, ci plateau seetu bi ak yeneen plateau yoo xam ni dañu ko am wax naa ne dañu nekk am partenariat ak li nga xam ne moom mooy foir donc dara du leen ump ci li nga xam ne mooy foire bi waaye tamit concert yi nga xam ni dafay am ci eh, Tina maa ngi lay kontaanee bu baax Tina xale bu jong maa ngi ne maa ngi lay nuyu yaa ngi am jàmm jaajëf jaajëf maa ngi lay bëggee bu a baax et tamit ay événement yu mag dina am ci foir bi ay show ay concert euh, comme euh, bu ci mel ni ki nga xam ne mooy caat donc Toch euh, fi ñu toll dama lay bàyyi nga dalal caat hmm? dalal caat kii mooy alaaji Thiat Seck mu baax mi mm-hmm. ku xam Thiat Seck xam kook Aba Sow mm-hmm. ku xam Thiat Seck Thiat xam kook nit ku baax nit ñu baax ñi mm-hmm. bu nee der Sénégal yëngu maa ngi ñëw Thiat ma la nuyul du ma la na dara yow booy nuyoo neel der rek maa ngi ñëw aci aci Awa Gaye mu ngi ñuy euh, soog fekk ci plateau bi Awa Gaye kontaan nañ ci dafa mel ni yaa ngi soog a ñëw ci foire Uh, yeah it's my first time actually uh, ma ñëw uh, CICES in general damay ñëw fii nii jege ba xaw ma woon ne CICES is this big aba ba ma tax na ma dugg xaw a def sama gëstu si CICES ak FIDAK bi nga xamante ni yàgg na boobu ba tey ñu ngi yëngu si commerce di dajale commerçant yu mag yi ak yu ndaw yi together su ko defee ñu gën a explore li nga xamante ni mooy jënd ak jaay du Sénégal rek aba ba partout ku nekk am nga possibility pour ñëw bokk ci li nga xamante ni mooy the FIDAC, uh, ABACON. it's a pleasure and it's my first time here and I think it's not gonna be my last léegi xam ma la laa bëgg a def Aba. Mm, mm. ma bay dama bëgg a dugg si staan yi. ma wanteer. <laughs> boo demee de fekk fa ay ñu boo fa demee fa ñu am ñoo xam ne ñu am temps dégg daaj. wanteer laa demee yoo xam ne dootoo defati. ah nañu nuyu caat. yow te moom balaa ñu dem xool yi ah, programme yeeg événement yi nga xam ni moom la ñu am ak euh, la télévision euh, Futur Média euh, te mooy TFM Ahmed ana client yi. yaa ngi wër rek ci marché bi xale ñoo bari jom cat ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. waaw ba ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar maa ngi fekk suma xarit sama nami sama frère ku baax di ziar soxna si bu baax a baax. delloo ziar di la bégee di la ñaanal wér gudd fan di ko ñaanal ñëpp di ñaan sope am jàmm foire bi ñu fiy liggéey. luñ fi luñ fi di ko jaay yàlla na jar. amiin si barke sëñ Touba. li ngeen dëgmal nekk ci yàlla na yàlla àggale. ngeen am jàmm waa TFM mam jàmm Abba yàlla na yàlla defal la jàmm. amiin ku baax nga. ayca caat ñu gis programme bi nga xam ni moom moo am euh, fii ci biir foire bi euh, ñu gis ni je pense que yaay ubbi foire bi caat euh, yaa ngi waajal àjjuma. waa Abba ñu ngi waajal vendredi bu neexee yàlla di ci woo soppee yëpp di woo ñëpp di xamal ne caat bon yi rek lay mos a jugee na Touba na Mbacké ak ma benn région bay ma fenn den xamal ne vendredi ñu ngi si foir bi en live lay doon concert bu bu tàng jër ak ak soppe yi danaa woy danaa fecc dana yëg si kaw poto yi. mais mais mais man. Aba de waaw xam nga yooyu man euh, nuyoo bi nii yëngalaguma. dama bëgg comme ni ko Toch waxee. lift me up. waaw xam nga damaa bëgg bàyyi rek. non non non il faut nga ñamal ñu ba vendredi. non cin bu non naree neex. ak capella sa yëf wala olof Ndiaye daa juum. bilaay ndeysaan c'est à la demande nationale. dëgg la dañ la koy ñaan rek. bu vendredi dana neex loolee waaw waaw waaw waaw. a yàgg. <laughs> ndeysaan <laughs> fekk na ma bi may bëgg yàgg na. de. ay doom wax daan caat. stade stade Iba Mar di fa tëgg ca di nga yëg da ngay yëg de loolu yàgg na mm, mm, fu ma mos boobu avant sax waali boobu waali sama rek di ñëwagul mu ma kii Sen TV caat sama mag ju baax ji sax moo ko créé <laughs> xam naa lépp Sen TV 2S moo créé lépp ba TFM euh, vraiment fu ñu mës a dem rek nga fekk ñu fa moom itamit di waykatu ndaanaan loo xam ni buñ la waxee Waly Seck mhm. euh, daraan ñëw caat di ko présenté naan leen ngeen tàcc ko doomu Thione Seck la ku mën a way la nit ñi naan wuu mu yokk waali doole tey moom ak diggante mag waali day nekk lu yàgg la mhm. lu yàgg la mu yàgg teg waali loxo donc ba tey vraiment mu nekk lu am solo mais Thiat ñu gëj la gis ah, gëj la dégg gëj a xam ci loo nekk yaakaar naa ni vendredi balaa ñu ci wax dinañu wax ci yow tuuti fan nga nekkoon waaw maa ngi fii ndeysaan Aba nekk sama ruq rek di yëngu sama soirée xale di ma dooleel léeg-léeg ma nekk ravin léeg-léeg ma nekk kabana léeg-léeg ma dugg five toj fa génnaat mu xam nga ndax soppe yi amuñ seen fay sëñ xaadim ñu ngi lay ziar bu baax maa ngi lay bëggee yàgg maa ñaanal yàlla na nga am jàmm soppe yi awma seen fay ñun ñu ngi si ruq yi di job suñuy soppe di liggéey ndax ñunu rek soppe la kon awma seen fay ñu ngi suñu ruq ñu ngi liggéey waaye nag album def naa ñaata album defagum naa trois mais waaw sant yàlla lu jot yomb vendredi daal ku bëgg a déglu caat nang ko fekk foire du yomb instant bi ñu nag sama rakk ji def ma daf maa yëkkati. Mm. muy waali Ballago. Mm. macha allah waaw daf ma daf ma def ma daf ma yëkkati. xam nga ba pare xam nga yàlla pare na. ñun ñu ngi ñu ngi sant yàlla. noonu changé waaye ma fekk fenn ma yëkkati mu baax ba pare yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin ma ne oto bi de. nit si nit la lay jaarale rek. dëgg la nga oyof rek am li nga bëgg dem. Mm. bu nu bu nu bu nu téye bu nu téye dara. lépp génn lépp. waaw waaw àdduna amul solo. lépp tey bul jooy de. non dama koy téye. <laughs> lépp naa ci jooy dama koy téye. caat euh, lépp lu jóge si euh, si yàlla toujours euh, da koy jaarale si nit ndaxte doomu aadama bokk na ci lu yàlla gën a fonk surtout nag képp ku xam ne dafa bokk si njabootu ku ku tedd ki waaye rek Aba le 25 kañ la. le 25 ginnaawaat suba la. téyel ma temps tëb tëb tëb. tëdd të të të të të. ay të të të të të të. nañu dem xool yi sport taaru rab gaal seen te ñëwaat léegi léegi ci plateau bi waaye car sekk dégg waay yi ay ca TRG te ñëwaat léegi léegi ci plateau bi musée des civilisations noires ay ca. présente TRG loolu mooy taaru rab gaal seen show. première édition bi dina am le 25 décembre planète du musée des civilisations noires son et lumière taaru rab gaal seen lu tax ngeen war a dem ndax rab gaal seen waxal na Sénégal bi Sénégal sëggee mbaamu sëngeem yàgg nañ ñoo bégal yàgg nañ ñoo waxal moo tax Sénar Vision ne dañoo bëgg a dérouler le tapis rouge le rab gaal seen décembre fu nekk la artiste di bàyyi di ñëw Sénégal yéen ngeen war a dem buy ji ay artistes yu am talent allez leur dire merci pour tout ce que vous avez fait qui va jouer le décembre planète hip hop Galsen DG Mike Paco Breeze Rifu on the mic Jaman Express Akatsuki SN Simon El Jazz Akbes Mami Victory Matadi Gunman Roman Nara P Dabwens the Best Fata Los Diwanji Fuken Cook Gunmore ñi

en partenariat avec Orange. ñu lay dégg Maodo sise ñu lay dégg baax. acca hip hop Galsen. hip hop Galsen ku mën na ku mën na nga ñëw. taaru rap Galsen. ñu fa nekk ñëpp dañoo mën ñu mënul moom. plus de vingt cinq rappeurs ay tey ngaa bañ a dugg ci rappeurs yi ngaan ñi mën ak ñi mënul. non non mën ñoo fa nekk dafa am ñoo xam ni ñëwuñu parce que dañoo xuloo kii def. Ah, ñi mën ak ñi mënul. loolu la ni dof ñëwul. da ngaa wax ñi bokkul yëpp ñëwul. da ngaa wax dig mënul samba mënul. samba tosh moo ma dey kon nag li nga ma wax daa leerul non dama ne am na ñoo xamante ni bokkuñu. Ah. mais ça veut ñi bokkul mënuñu. ah ok kon affaire bi noonu parce que boo nee dib mënul. wala nga ni ah, sàmba mënul. wala nga ni nit dof. Eh, kii la eh, nga ni mënul. Eh. ah déedéet mënuñu. waaw mënuñu kon boog euh, mi ngi noon la 25 incha allahu rabbi euh, ñi nga xamante ni euh, bokkuñu ci yàlla dogalu ko mooy defaraat wax ci. ayca mi ngi noonu ngeen dem ngeen jël seen ay billets entrée bi simple 5000 la VIP 10 000 la TRG Taaru Rab Galsen woote leen ci 78 388 00. double zéro ngeen am li nga xam ne moom mooy seen ay billets taaru rab Galsen TRG fu ñuy demaat. Eh, fu ñuy demaat Aba xam nga décembre la ñu nekk. Mm-hmm. Eh, te ku ne décembre xam nga décembre si ambiance xam nga décembre si fashion décembre musul yomb da ngay gis ne koo xamante ne dafay yàgg di jënd a yéreem di ko dajale eh, pour événement décembre ba tax na li nga xamante ni mooy foire bi nga xamante ni les bonnes affaires de décembre. Euh, mooy am euh, tey la commencé Aba euh, foo fere fele foofu noonu. ma ngay amee ca place de souvenir. waay ayca tey la commencé sànq maa ngi fay jaar ma ngay jax-jax yi. Mhm. lépp rek loo xam ni nit da koy bëgg ci di ko soxla ci weer wi wala sa kër wala pour nit boo fa demee fekk ko fa stand yu doy waar exposition bu doy waar organisation bu rafet original animation ay concert rek moom itamit lépp dina am ci li nga xam ni moom mooy place du souvenir yaakaar naa ne mën nañ ko dem xooli ñëwaat. waaw dañuy dem xooli les bonnes affaires. the December. We'll be right back. Les bonnes affaires, les bonnes affaires de la fin d'année du 21 au 25 décembre lu kenn mësul gis lii lii mooy du souvenir ay stand ay chapiteaux yuy jaay diglul ay cadeaux ay jeux resto habillement décoration bijoux cosmétique ba ci pâtisserie et dama ni foire baa ngi nii lépp loo doon rêvé ci fin d'année mën nga ko fekk ci place du souvenir animation maanaam ay semi concert ay playback yu amul fenn aire de jeu maanaam papa yaay doom mën nañoo ànd yaay di visiter papa di jënd doom dem fële lii mooy les bonnes affaires de décembre de 8 heures à 0 heure en partenariat avec la place du FM RFM Groupe Futur Média GFM SSP Prince A Infoline 77 267 20 20 les bonnes affaires de décembre c'est à la place du souvenir du 21 au 25 décembre et ndaw lu neex ayca mu ngi noonu euh, loolu nag yaakaar naa ni mooy foire bi nga xam ni maa ngi am ci place du souvenir mhm. les bonnes affaires de décembre. les bonnes affaires de décembre euh, euh, tour bi wuyu na li nga xamante ni moo fay am les bonnes people les bonnes affaires les bonnes organisations everything is just bon boo fa demee di nga fekk really really really nice stuff authentique affaire yoo xamante ni dañ ko waaja dajale indil leen ko Aba Aba waaye damay poroxlu rek duggaat ci décembre bi le fiesta non non balaa ngay dem ci décembre. ah da nga koy téye dama bëggoon a dama bëggoon ah, dama ah, bi dafa waroon dem euh, ci fi nga xam ni moom mooy les bonnes affaires. yeah âge luxe ñëw. ah ñëpp bëgg ko. dëgg la affaire bi dox. xeetu make up yu waar yooyu xeeti baax baax ak cheveux yi ak safula xeetu baax yooyu baax baax yi yëpp. Mhm. nga am ko indiwoo ko. da la mere. Euh, non non buñ ma mere Abba ndaxte xam nga damay door a door bi may ñëw fekk na les bonnes affaires Euh, commencé léegi man dama koy daal di ko jël yóbbu ko abaa xolal dénk naa la Agilux mi ngi noonu defal lu la neex. ñoom ñooy kon. ku ku koy wane Agilux rotation yii nii. xoola ah, ah ah ok ñi soxla nañu xoola <laughs> boobu. ay nañu dem thank you so much uh, Abba. Uh-huh. ya Mm-hmm. Euh, so euh, Edulux euh, mi ngi noonu pour the Sénégambian people Aba ndaxte wax dëgg neex yàlla bi ma ñëwee Sénégal yéen ñëpp da ngeen maa yaatal téye ma ba ma am fitu mm-hmm. create li nga xamante ni mooy cheveux ak yeneen yi nga xamante ne mi ngi si yoon bi di ñëw pour lekk pour joxaat leen ko yéen ñi nga xamante ni yéen a ma safoo bëgg ma di leen wax thank you so much Aba di wax rek mami yoxel naa ko benn bopp dëgg Ah? Euh, yow bu doon amoon nga kenn ma yoral ko bopp. yow jox ma rek man dinaa ko jox <laughs> xale mi ngi noonu Abba. xeeti bopp yu baax yi te original authentique yaakaar naa ni euh, nga xam ni longueur boo ci bëgg rek mën nga ko ci am Agilux mën ngaa woote yow boo ci bu fekkee da nga cee bëgg am yaa ngi ñu seetaan mën ngaa woote ci 78 455 91 91 am ci xeetu bopp yi nga xam ne moom la xale bi def tarkalla bopp yu am solo nga xam ni ondulé raide semi ondulé xeeti baax baax yooyu yëpp am na ci bopp xale bi ñëw leen gaaw jël ko yéexati ñàkk la rëmbati réccu la Agilux moo koy toj. ayca ah. nañu dem ci euh, lii di nga def du Agilux. no bii mu def nii laa lii mooy ree de côté. Ah. waaw bi nekkoon ci digg mooy ree de milieu man xam naa ree yëpp. Ah, man fu am tere xam naa fa. sànq man mii ree nga xam naa ree man mii ree ma xam naa ree yëpp mbay ak neeto. mbay ak xam ree moo tax daa amee woon ree. ayca <laughs> nañu jox caat euh, nañu jox caat euh, mu wax ak ay ñi nga xam ni ñoom ñooy ay. fansu caat ñi nga xam ni caat bu xewlee ñoo ci ñëw jàpp caat woote woo ñi bëgg a woo ñëpp bu ko defee laata ñu jël xale yooyu nga xam ne ñoom ñooy waa Aba Siko ay ca caat waa Aba waa bis bi comme que sunu mag ju baax jee koy tijji maa ngi ci woo ñëpp ndax nag gars yi ñu suñu man man la ñu ma caata suñu mag ju baax ji <laughs> mooy leen comme que maay seen mag ju baax nag maay tëj yëf yi di béggee papa Youssou Ndour bu baax di ko ñaanal gudd fan ak yu rek kattan suñu papa la moom suñu papa yu baax ji waaw di béggee tout le monde boo nee euh, papa Youssou Ndour dama ci teg papa euh, sama rakk ji Waly Seck mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm amiin te yàlla defal ma jàmm defal ko waykat yëpp ñoom jàmm euh, caat jàmm lan la ñuy xaar ci yow lu toj non man li ma yor lu toj lu bëri liy toj dafa bëri. comme dab day ñëw barke Alaaji Fallu Mbakke xam nga lu bon yàkkamti mm-hmm. di xooxoo di génn. Mm-hmm. damaa toog ruq ba rek. Mm-hmm. di fo rek te li ma yor si woy daa bëri. comme que maa ngi roy si mag xale yi di roy ci caat loolu sant yàlla la. damay sant yàlla ba fecc. vendredi daal maa ngi woo ñëpp samay soppee nouvelle vision caat 100 pour cent caat génération caat xale caat sec képp ku itti jël caat di bëgg caat bokk ci fan si clubam maa ngi leen di woo vendredi fii ci foire bi tey la lan du mercredi. suba la jeudi. ginnaaw mm. suba ginnaaw suba la. Mm. kon maa ngi woo ñëpp ci foire bi ngeen ñëw dégg ambiance bu neex wayu neex. aba 31 décembre maa ngi jëm ba Gandiol. Mm-hmm. fa laay jee bu neexee yàlla. Mm-hmm. waa Ndar nañ génn waa Gandiol génn. 31 mm. décembre. Mm-hmm. Euh, le premier su ma jógee 31 décembre may wàcc Kees. Kees waaw gala diine bu mag. sëñ Mamour Séri Kiné. bis bu rëy ma ciy woo ñëpp su ma jugee foofu maa ngi bëgg Alsaan sama xarit Alsaan sidibe Séri Sow Dia dañ doon takk jabar barki démb Aba te ki ñu takk Paris la jógee ñibbisi na ñu def mariage bu mag toj naa fa maa ngi bëgg sew jaa borom Paris série Alsan léegi daal Padros dégg waa benn la Aba Aba la Padros kat mooy jaxase ñu ñi fan yi jaxase na ñu ñëpp la yaa ngi déglu yow Aba damaa juum yow yëpp benn la yow ñu yàgg ñëpp Padros jaxase na ñu ñëpp ku ne mu tëggal la yow yow bokkoo ci loolu yow xarit yàlla nga am Aba Padros nag da nga ma jéggal jaxase nga yow ñëpp Padros mii yow lépp a daal le deux waaw dégguma waaw waaw le premier deux maa ngi Kabana. Kabana extropique le deux su ma jugee kees maa ngi le deux Kabana extropique. ayca vendredi nag ñu ngi woo ñëpp foire bi du yomb Aba Aba nag. yaa ngi ci biir maa ngi ci biir ak sama xarit ak sama jigéen ayce dama bëggoon laaj xale yi ndax yéen a ngi waajal fiesta xale yi ayo gay euh, fiesta xale yi euh, vendredi 30 ca grand théâtre jooy leen seen papa yeeg seen yaay indi leen <laughs> euh, fiesta xale yi ayo gay right fiesta xale yi aba te képp ku wax fiesta xale yi sa xel day dem straight ci ñi nga xamante ne ñooy waa Prince Art bi nga xamante ne dañuy fekk talent fu mu nekk ci xale yeewoogul ñi daal di ko yee aba kon bu ñu wootee dafay nekk spécial dee te ku ne fiesta xale euh, di nga xam ne li nga xamante ni euh, mooy ambiance dina fa am waaye affaire bi daal dina xale carrément euh, lépp loo xamante ni daal a si côté ambiance lu nekk lu nekk lu nekk lu nekk mi ngi foofu noonu Aba xanaa rek su fekkee ne am nga the numbers wala dañuy seetaani bande annonce bi oh, noo ko bëggee rek ñu defee ko. ñu dem xooli bande annonce bi te ñëwaat léegi ci plateau seetu Il était une fois le monde merveilleux des enfants. Mmh, le plus beau spectacle de l'année vous sera raconté dans Fiesta Khalei. Waouh Dans la magnifique du Grand Théâtre d'Oudoundia et Kumboros, l'après-midi du décembre sera inoubliable. Nous serons habillés comme des princes et des princesses pour vous émerveiller. Avec nos mini nous vous ferons voyager dans le monde des enfants. def suñu tapis rouge bu neex sol suñu yére yu rafet ànd ak suñu parents ndax nag xam ni bés boobu ah suñu fiesta la. taxaw. Mhm. Euh, ana Xaadim euh, nañu xool xale yi ni ñu taxawee fiesta xale yi xale yi vendredi 30 décembre au Grand Théâtre donc jooy leen. waaye seen euh, di def nii rek Aba. <laughs> Euh, daal di rek euh, dem ci xale yi comme it's a fiesta Saturday fiesta wax leen fiesta. fiesta wax leen fiesta fiesta. fiesta fiesta. yaa jëndal ñu billet. yaa yaay tos tos tos papa damay dem wala ma jooy tos na ñëpp dem fee na ñëpp dem fee indi leen fee indi leen fee waxal pap papa damay dem wala ma jooy indi ah, leen fii indi leen fii ci kaw fii indi leen fii kaay leen kaay leen kaay leen <laughs> tos tos tos waaw waaw waaw ok ayca kaa leen. ndeysaan sama njaboot gu ndaw taxaw leen fii taxaw leen fii. ndànk rek ku taxaw fii du feeñ. ndànk rek taxaw leen fii taxaw leen fee. ndànk rek taxaw leen fii. mu taxaw foofu di fay ana waa Abasiko Abasiko ayca tos tos ci Abasiko ngeen ne fu ngeen bëgg a dem Abasiko ayca tos ci Abasiko ayca ñu ambiance na ngeen def yéen a ngi noos eh ayca léegi tos nañu dem ak ñi nga xam ne ñooy Abass ko ñu ambiance suuti laata ñuy dem ci li nga xam ni moom mooy waa Café Touba al show ak Fatou Koundoul donc nañu dem ci waa Abass ko ñu ambiance tuuti ak élèves avant ñuy dem euh, cette année benn de publicité ayca. yee ki waru jooy waru jooy ndaxte gone la yee waru jooy e waru jooy ndaxte gone la yee a yee ki waru jooy waru jooy ndaxte gone la warul jooj na te gone la esigo man wona la wona la ma aduna amu solo aye ki warul jooj e warul jooj na te gone e aye aye aye xale bi warul jooj warul jooy warul jooy na te gone la woma ye woma woma eh, woma woma e woma woma e woma woma woma woma e woma woma e woma woma woma e, e, e. Abasiko. Abasiko. Aba Siko Aba Siko Aba Siko Hey! Bébé yo, bébé yo, e waxala saya, sumulay seesi man, saya di ma do. Bimbam. léegi euh, Abasiko léegi xam nga nan la ñuy def parce que Abasiko am na événement bu war a xew le 24 euh, bii mooy deuxième édition bi dinañ ci ñëw léegi euh, gën ci yaatal nañu dem xool yi. bande annonce Youssou Ndour premier janvier le temps ñu yeewi xale yi xale yi bu ñu leen bàyyee dañuy émission émission bi yëmbal lañ dëkk xam naa leen ñun ambiance suñu yaram la nekk aska moo indi xale yi aska moo indi xale yi xam naa xam naa xam na xale yi donc nañu leen bàyyi ñu dem ñu dem xool yi Youssou Ndour musée des civilisations noires le premier janvier ñëwaat ñu waxtaan ak Abachiko wax ci ki nga xam ni mooy waa Café Touba à Show ak Fatou Koundoul daal di tëj bi en beauté jërë ngeen xale yi nañu dem xooli ban annonce ñëwaat ci plateau bi doon xaar yegsi na le grand bal 2023 avec la voix légendaire de la musique sénégalaise l'icône incontestable de toute une génération la référence mondiale de la musique africaine oui vous l'avez bien compris Youssou Ndour Youssou N'Dour, la star planétaire, vous donne rendez-vous ce 1er janvier à partir de 23h sur l'esplanade du musée des civilisations noires à Dakar. Defoon nañ ko daaw mu neexoon lool ren nag bu leen fa kenn ndax Youssou N'Dour na ce 1er janvier dina fa def lu ma musul def ci kaw seen. lu waay amul et sama ay

Ce 1er janvier, c'est l'événement de ce début d'année 2023 à ne manquer sous aucun prétexte. ayca gaay maaw balaa ñu yeggali ambiance bi dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, Abachiko yaakaar naa ni am na événement boo xam ne ñu ngi koy waajal euh, ku yor micro bi est-ce que moo war a wax événement bi. acc lan la ñuy waajal le vingt waaw le 24 dañuy waajal suñu deuxième euh, édition mooy anniversaire. Mm-hmm. tam nañ di ko def chaque année. Mm-hmm. waaw dañ koy def nag ngir fo ak pour koñ bi gën a dundal koñ bi. fu muy amee. Euh, terrain du seet lay nekk Parcelles Assainies. kañ la. le 24 décembre. à quelle heure. 21 heures. lan ak lan la fay am. waaw dina am ambiance ambiance bu bu bëri sax bu mag sax. Mm-hmm. waaw ñu sikoo foofu yëpp comme nga parcelle waaw parcelle moom dëkk sikool te dëkk cosaan la. moo dañuy dekkalaat siko bi dañuy taal asiko yi rek dañuy jël asiko yi di ko jàpp tëgg wala dafay am foo xam dañ fay taal ay xal muy tàkk ak ay yooyu ambiance yëpp dafa am si day am feu yooyu yëpp pour euh, waaw muy feu feu feu de camp yooyu noonu ñuy gis waaw lañ teg ci koñ bi nawetaan la wala lan la non du nawetaan du na feetu Abasiko la. waaw buy xew le 24 décembre. waaw day am ay entrée wala du am entrée. non la. kon terrain ak apes ñu ngi noonu. soo is an open show daal. ayca ayca open show la euh, dem te bëgg naa sax euh, Fatou Koundoul accompagner xale yi nga xam ne ñooy Abasiko. Mm-hmm. léegi nag fàttali ñu Fatou Koundoul ci li mu nekk ci lan la yëngu ak ku ci bëgg rek euh, ci yan numéro ngay woote awa gay mi ngi noonu képp koo xamante ni da nga bëgg café Touba bu neex a neex bu set sell ku xam ne da nga bëgg café nga bëgg li nga xamante ni mooy was bi ko ñëpp xamee aussi macha allah euh, was boo xamante ni euh, dafa baax ci sa wérgu yaram mun nga ko naan at any time euh, doo am benn problème ak ay plateau sucré salé yoo xamante ni diabétique mun na ko lekk ku amul diabète mun na ko lekk xale mun na ko lekk mag mun na ko lekk ngeen def seen ay commande ngeen woo ko si 77 459 93 11 77 459 93 11 mi ngi Facebook mi ngi Instagram mi ngi li nga xamante ni tamit mooy Euh, um, euh, Snapchat euh, Aba Aba mi ngi noonu Fatou Koundoul. ay ci kooku mooy Fatou Koundoul mooy borom Café Touba lépp rek lu waaye am moo xam muy réunion ay. séminaire nga bëgg ay petit déjeuner yu toog bëgg ay petit four ay amuse-gueule tarkal la boo ko wooyee eh, ci numéro bi nga xam ne moom la la awa gay jox mu fekk la fi nga nekk indi la ko was ay café meew ndox mu tàng sax wala dañ koy xëppante ndox mu tàng ak Fatou Koundoul yàlla na jàmmam yàgg léegi ah, fi ñu toll nii nee na eh, ki nekk ci réalisation bi nee na nga tourné ko la cafetière mu mën a jël li nga xam ni moom mooy li ñu ci loolu yëpp Awa Gaye mi ngi noonu Awa Gaye nag balaa nga ñu joxaat sunu kàddu. Hmm. nga tàggatoo rek émission bi. Uh, thank you very much uh, Abba it's always a pleasure to be uh, with you on uh, Bi waaye uh, it's a pleasure <laughs> to be on especially ñëw fi nga xamante ni mooy FIDAK bi foire bi nga xamante ni every year ñëpp a koy waajal waaye nag at bii nii mu nekk lu spécial nekk loo xamante ni it's extraordinary Abba may remercier bu baax a waa Aji Luxe euh, ci euh, karaw bi nga xamante ni euh, macha allah kon da ngay remercier sa bopp rek yaa ko moom. <laughs> waaw damay remercier sama bopp ak ñi may àndal ñëpp ci li nga xamante ni mooy Aji Luxe Aji Luxe nee naa leen dañu ñëw pour changer histoire de cheveux dama bëgg ñëpp di jox valeur cheveux comme ni ngay jëndee or di ko jëndee li nga xamante dafa cher cheveux dafa cher Aji Luxe dafa ñëw pour changer histoire li nga xamante ni mooy cheveux Aba thank you so much guys 78 455 91 91 Aba thanks. kon aba wona la bul ma jële xare xare xare xare booy xare tàggatoo kii dafa baadoo la même ma tàggatoo booy euh, maa ngi ay see ay see manko ay see manko ca jam ñaajo maa ngi leen di kontaane dañuy jouer final maa ngi bég ci ñoom bu baax a baax wax lom euh, aba Chico seen premier année neneen Chico la woon mais seen deuxième année yàlla def mu tombé ak Abasiko joxal ma leen cent mille ba pare booleel ma leen ak ki nga xam ni moom mooy maam Seydi ñu xool ñaata lañ mu defal leen ay t-shirt ñoom ñëpp Abasiko balaa ñuy dem léegi nga jox leen cent mille francs ñu euh, suba nga jox leen seen ay t donc loolu mooy Abasiko tos nag bu la neexee bu dee nga bëgg a yàq émission bi mën nga ambiance. kon Aba woy na bul ma jëloo. la aba way na la bul ma jolo aba yërmande